Youssou Ndour ñëw na walo walo bi ñëw na Youssou Ndour ñëw na mi ngi noonu c'est le fils biologique de Balla Gaye 2 Youssou Ndour Youssou Ndour ñëw na Youssou Ndour ñëw na Youssou Ndour ñëw na waaw waaw Youssou Ndour ñëw na jëla jëriñ moor jëla jëriñ moor Youssou Ndour ñëw na waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw Youssou Ndour ngay am noonu ndeysaan waaw waaw yàgg naa lu yàgg dëgg la Youssou Ndour a ngi a ngi noonu ndeysaan am na seen amoon kankan Youssou Ndour ngay noonu ndeysaan jëlal kàkku de jëlal Thiatou Daouda Fall ci rang yi ndigal mi ngi ci rang yi ndeysaan Samba Lawbe waaw waaw loo loo Karim John Kara mi ngi ci ginnaaw ndeysaan eh eh Youssou Ndour yee Garga bébé Garga mi ngi ci Ndoundé ndeysaan Youssou Ndoundé Mbalou waaw waaw waaw waaw waaw waaw Balla Gaye 2 ñëw na Balla Gaye 2 ñëw na Balla Gaye 2 ñëw na Balla Gaye 2 ñëw na l'ancien roi des arènes mi ngi noonu le fils de Double Less mi ngi noonu Balla Gaye 2 ñëw na soutenir Youssou Ndour Balla Gaye 2 mi ngi noonu ñëw na soutenir Youssou Ndour Omar Sakho alias Balla Gaye numéro 2 l'ancien roi des arènes ñëw na ñëw na ci tenir Youssou Ndour ndeysaan waaw waaw ñëw na ci tenir Youssou Ndour Balla Gaye jël nga yam noonu ñu ngi noonu Balla Gaye jël nga le roi des arènes Balla Gaye 2 venir soutenir son petit frère Youssou Ndour waaw waaw mi ngi noonu mi ngi noonu Youssou Ndour moo xewle Balla Gaye 2 ñëw na soutenir ko c'est l'ancien roi des arènes waaw mi ngi noonu mi ngi noonu Youssou Ndour na waalo waalo Youssou Ndour fils biologique de Balla Gaye Ndour Balla Gaye 2 ñëw na l'ancien roi des arènes mi ngi noonu Balla Gaye 2 venir soutenir son petit frère Youssou la tuus bi waaw waaw lu Karim ngay am noonu Daouda Daouda Fall ngay am noonu Ndigal ngay am noonu Boursek Yagati ngay am noonu noonu lay Baye Fall Thiam Ndigal jëlal yan bu diis yan bu diis ngeen doon ndeysaan les poids de les Balla Gaye Youssou Ndour gis na ba noppi c'est le fils biologique de Bala Gaye Ndour gis nañ ci Gaye numéro 2 Venez soutenir son petit frère Youssou Ndour Et le dimanche